wax dëgg yàlla campagne bu bu bu ñu jot am ci jàmm ak salaam di ñëwaat tey di dolliwaat santaat yàlla parce que tey voté nañu tamit ci jàmm ak salaam te ñu ngi ñaan yàlla fépp fu sénégalais mën a nekk Sénégal ak bitim réew na ko yàlla may jàmm ndax mu mën a tamit euh, voté mën a ñibbi këram te ñu ngi ñaan tamit yàlla yàlla na yàlla def lu gën ci Sénégal wante nañuy ñaawlu bu baax a baax a baax lu ñuy dégg ci rajo yi ak euh, lu mbokk yi di di ñu wax mooy daanaka dafa am ay sénégalais ñu nekk fii tey Sénégal bëgg a dem wote yor seen carte d'électeur di dem fu leen euh, seen carte d'électeur wax mooy seen centre de vote ak seen bureau de vote suñ fa eggee ñu ne leen ñoom mënuñu fa voter parce que seen tur nekkul ci fichier bi dama ne ñooñu ñoo nar am seen fulla bopp ak seen fayda bopp taxaw exiger ñu wote parce que amul kenn Sénégal ku nga xam ne ni mën nga taxaw rek joxe sa xalaat euh, te sa xalaat ak lu loi électorale wax bokkul loi électorale lu mu wax nee na képp ku nga xam ne ni yor nga sa carte d'électeur ñu wax la fan la sa centre de vote nekk ak fan la sa bureau de nekk loi électorale nee na dañ jàpp ne ni yow électeur nga kon nor nga am sañ-sañ dem nga voté kon nag amul benn mbindeef moo xam kuy bàyyeeku ci sena wala ci SEDA wala ci parti politique wala fu mu munti doon mu mën taxaw ne kii nowul voté parce que nekkul ci fichier dama ne cinquante deux milliards la administration bi jël ci askanu Sénégal ne ñoom dañuy organiser ay élections dem sax ba dañuy def ay cartes biométriques kon ñoom tey mënuñu tey ñëwaat tey ci askan wi bëgg a gëmloo askan wi que dina am ñuy wote ak ñeneen ñu dul wote balaa may dee nag ñu ñuy bëgg a gëmloo ni que dafa am ay kàngam yu bokk APR. doon ay ay ay kilifa ci seen gox ñu nekk ñooñu fi euh, nekkuñu ci fichier bi kon ñoom nangu nañu nekkuñu ci fichier bi kon dañuy ñibbi seen kër dama ne loolu ay cinéma la ay caaxaan la du am ba am mooy dañu nekk ci ay tànk sàcc élection tànk sàcc élection yu ñu nekk nag dama bëgg ñu dégg ñu bu baax baax kenn du ko fi nangu ay waxu ay police ay gendarmerie dama ne ñun duñu ay ragal ay citoyen la ñu te dañu xam suñu ay droit te am na lu ngeen xam ni kenn du ko fi nangu waaw yéen ñëpp pendant campagne bi yéen ñëpp gis ngeen fii ci réseaux sociaux yi di gis ay vidéo di gis ay nit nekk seen biir néeg yor ay carte électeur yu dul jeex di ko fooye yéen ñëpp gis ngeen fii ay nit di def ay vidéo di wane xaalis bul ñu jox pour jënd seen ay conscience jënd seen ay vote te loolu yëpp loi électorale daf ko tere daanaka gis ngeen yéen ci campagne bi ñuy yëpp nit ñi ci ay oto di leen jox ay xaalis nit ñi ñëw tàccu Macky Sall ak yeneen ak yeneen ñu mel noonu donc ñooñu ci ay tànku sàcc élection la ñu nekk tànk sàcc élection yu ñu nekk noonu nag dañuy ñaax surtout préfet yi ak sous-préfet yi nañu xoolaat seen taxawaay am na lu ngeen xam ne ni kenn du ko fi nangu ma bëgg nag tamit lancer un appel au haut commandement de la gendarmerie nationale à la direction de la police nationale à l'état-major que ñu xam ne ni que ñun ay citoyens am na lu ngeen xam ne ni duñ ko fi nangu du ñu taal Sénégal du ñu yàq Sénégal wante tamit du ñu nangu Sénégal kenn du fi taxaw ne day sàcc élection du ñu ko fi nangu. ne ko gars yi teg ci yoon te ñaan yàlla tamit suñu waxee 6 heures bureau de vote yi tëj nañ leen yàlla na yàlla def lu gën ci Sénégal ku yàlla may ndam ñu xam ne ne yàlla may na ndam wante lii ay waxu ay ñii dañuy wote ñee du ñuy wote ay nekk fii di kekkantu ñu nii loolu kenn du ko fi nag moo bëggoon nag ñaax sénégalais yi nañu xoolaat seen taxawaay parce que mbéjum kanam nag ba borom a koy fajal boppam. am na quelques cas yu fi ñëw ñu ne amuñu nekk ci fichier ñoo ko gisee ñoo wote ñooñu su ñu amee carte électeur nañu woo préfet préfet bi ngi fii nañu wane seen carte électeur préfet na def lii di liggéeyam. préfet su ko mun leen liggéey liggéeyam mais na nit ñi forcé bureau de vote. benn carte baa ngi nii benn ngay voté. ana sa bureau dafa. législative bi dafa tënk dañuy voté. appel la dame. ma ne képp ku voté kay xam ko da nga ko.